waaw xam nga maanaam boo gisee tactile yi ñu ci mën a jàpp daal premièrement mooy au niveau des frontières rek comme ni ñu ko waxee parce que doonul loo xamante ne ci biir dëkk bi la la jógee à l'extérieur la jógee comme à l'extérieur la jógee nag lii gën mooy ñi nga xamante ni ñoom lañ teg suñuy frontière ñu gën a vigilant lañ doon liggéey ñu duble ko parce que bu fekkee ne comme nam daan doxee lay doxee bu ko doxee mën na jàll parce que ñu dañuy génn te xam nañ ni comme sécurité bi niñ koy wanee ci télé yi ak di ko wax ñoom ñoom état bi demewul noonu waaw parce que souvent da ngay dem ci da ngay dugg Mali wala nga dugg beneen réew da ngay gis faay yoo xamante ni nit mën na jaar dugg waaw kon nag yooyu noonu ñoom ci la ñu war a gën a vigilant xam nga ba nga xamante ni nii képp ku dugg ci réew mi ñu xam ba xam diw jaar na fi wala diw jaaru fi loolu daal suñ ko defee ñun ñi nekk biir Sénégal mën nañ ci mucc. waaw ci wàll cet ak aar yan tegtal ngay jox askan waaw set ak aar moom yaakaar naa ne waruñoo xaar sax ba feebar am ñu soo kee nekk li ko jiitu mooy doomu aadama moom war nga set. ci li nga xamante ni mooy sa jëmm. ak sa dëkkuwaay. ak ci li ngay lekk ak li ngay sol lépp. waaw yaakaar naa ne loolu daal moom mooy li jiitu moom avant avant feebar di ñëw set war a jiitu ba pare. waaw jàngoro jooju moom ñoo ngi koy dégg vraiment wax dëgg yàlla di ñaan tamit suñ borom musal ñu si. Euh, suñ borom musal ko gaw te foog ñu jël suñu matuwaay ndax frontière yi mom vraiment nit ñang ci ciy transport yang ci ciy camion yang ci ciy ñepp ñëpp a ngi ciy dugg mais amna sécurité ga mais ñu gën ko yok ndax mbir bu xewé ci réewum jambour tan ni mën du doxo doxo doxo ba dugg ci réew kon sa waa réew war nañ see jël ay matuwaay ndax fan yee maa ci en télé ministre bi dem euh, aéroport ñu jël seen i matuwaay mais ñu jël ci aéroport bi ay matuwaay ñu ko jël ci frontière yi ay matuwaay ndax frontière yi dugg fa yomb na trop réew moo xam ne nag dugg si frontière yomb na bu jàngoro joo xam ne dafa garaaw danger ñu koy dégg ci réewum jàmbur war mën a jël suñu réew si frontière yi matuwaay yoo xam ne képp ku fay dugg ñu xam ne yow mii kat yor nga jàngoro bi waroo yoroo bi képp kuy génn itam ñu xool la ba xam yor nga jàngoro bi waroo yoroo jàngoro ji dana si am solo soxna si. Euh, ci loolu ñu joxe ay tegtal yoo xam ne nii amaana ku ko topp di nga ci mucc ci wàllum feebar ci loolu lan ngay ñaaxaat askan wi. waaw askan wi moom li ma leen di rek mooy ñu bàyyi xel te set. set gi nag mënut a paase képp koo nekk sa kër nga wax say xale say doom jël matuwaay di raxasu ba set bépp nit bu fa ñëw itam leen nuyu ñu xam ko ñu bàyyi ko xel buñ ko xamul ñu bàyyi ko xel bu duggee si kër gi ba pare ba génn ñoom ku ko ci nuyoo itam nga dem raxasuwaat ba set ndax set moom yaakaar naa ne moo jig doomu aadama kon buñ bàyyee xel set gi rek yaakaar naa ne jàngoro ji mën nañ see mucc ci kàttanu suñu borom. waaw ah, état eh, bi da won nañ ci jóg bu baax baax japp ci quoi ndax ñun ay ndaw leen xam nga ndax li mu ko ko seetaan mu day yaax xam nga ko ko seetaan day yaax té loolu du yoon waaw mën nañ ci taxaw bu baax a baax baax waaw xam na li mu sa xasee bu dugg si dëkk moom day yàq Sénégal yaatu yaatu bo xamantene taxu taxul nit mun fee daw bu recc xam nga mais nak war nañ ci mëna a bu baax def ci seen loxo japp ci bu baax baax mëna dëmbalé askan bi quoi waaw loolu laa mën a wax waaw. ci loolu yan ñaax nga am aussi pour def ko à l'endroit de la population ndax dégg nañ ne feebar li koy gën a tas mooy euh, ñàkk set loxo yu yoxante ay loxo euh, ak lu ci demee noonu. waaw population bi tamit xam nga loolu balaa mu leen di dal tamit xam nga nañ xoolaat seen bopp bu baax a baax waaw gën a bàyyi si xel quoi bàyyi si xel balaa mu lay dab li ko moom loo gis nag su la dalee si yow la rek mais dañ ciy bàyyi xel waaw soo si bàyyi xel daal après. ñu ci mëna muccu quoi xam nga wa ñu bayante tamit xel bu baaxa baaxa baax nuyo yi ak xolante bu baax xam lu ñuy tek suñu bop bu baax tax kon ko dégg nañ ko ñu gëna sama suñu bop baña ki microbe yi kon ay poussière yi ak dem ci marché yi ni ni ñu ut jëm xol marché bi ñu bëri ay nit ñu ut ay masque yi ñu tak wala ay sol ay gants ni ñu génné ba duggal suñu kër ñu jéem ñu ut ndox ak saabu ak eau de javel raxas suñu loxo pour éviter maladie boobu. waaw li wax moom dëgg la comme ñoom noonu la demee moom côté Sénégal amuñu euh, doole seen moyen bëriwul euh, te daanaka danoo njaboot xam nga waaw buñ sañoon nag wax yàlla Macky Sall comme mooy président moom moo fi nekkal askan wi ñu ngay ñaan rek lu ñu mën a dimbalee ci frontière yeeg euh, fu fi mu fi war a mën a jaar fépp daal mu dimbale daal ba ba barab bi daal du ma a dugg si daal moom moom moom la ngay ñaan quoi. ci loolu bi ndax nee nañ jàngoro bi li koy gën a séddale ci benn ci air bi la nekk ñaar loxo yi loolu ah comme sama mbokk jii rek comme dégg nañ loolu mu xam ni ñu xam ni comme loolu moom day day nuyoo bi moom day jox indi gàllankoor ah comme nuyoo moom yàlla moom san sang moo ko digle mais tamit comme loolu day indi gàllankoor tamit nga bañ a joxe loxo rek asalaamaaleykum moom ñoom maam doon daana ko nuyoo. wala soo nga raxasu. waaw. mais tamit mënu ñàkkee boo nee salaamaaleykum nuyoo nga ñëpp maaleykum salaam wa rahmatulah wa ñu dara